tey nag yàlla dogal nga amoon bés bu rëy bés bu capital boo xamante ni tey euh, un bon nombre de personnes gëmuñu woon ne mën nga relever défi bi waaye avant dara dañ lay dalal nuyu la bàyyi la nga nuyu ñi lay seetaan saafonteeg say supporters. waaw asalaamaaleykum Boucar maa ngi lay nuyu bu baax di bu baax a baax di sant yàlla ju suwent bi sant sumay ñaari waajur di nuyu waa kër Cheikh na Cheikh di nuyu waa kër Cheikh na wul gépp gépp gépp sama famille yaay waa kër maam Cheikh Ndouma Seck di nuyu sama papa muy waa Samb yëpp ak waa Majakad maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp waa kër maam Borom Touba waa kër maam Alaaji Mari waa kër Abdou Khadir Jilaani suñu mbokk Ceerno yi waa kër Bamba ñett Medina Baye maa ngi leen nuyu bu baax waa Laayeen kilifa diine kilifa aada yëpp maa ngi leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci taxawaay bi ci jàppale bi ci ñaar ci ñi ñëw stade ak ñi ñëwul stade ak nit fu mu mën a nekk nekk sama mbokk wala nga sama soppe wala sama xarit jàppale ma defal ma ñaan dooleel ma ba yàlla may ma ndam maa ngi lay sant bu baax a baax di encouragé suñu camp adversaire bi ñu doon bëreer muy waa Géejawaay parce que Pikine Géejawaay benn la ñoo bokk lay ñoo ñu ngi leen encouragé comme ni ma koy waxee di féliciter seen mbër duñ ko encourager dañ koy féliciter Balla suñu grand mu nekk champion boo xam ne champion bu confirmé la def li mu war def ci làmb yëpp ñu ñëpp nga nekk mbër a nga ñàkk mbër foo nekk da ngay xam ni champion bu mérité lépp la da nga koy nangul donc ñu ngi koy féliciter di ko ñaanal jàmm moom encadrement am ak njabootam ak ñëpp ñu mu nekkal waaye di kontaan ci jotaay bi tey waaw di nuyu le premier magistrat de la ville de Pikine muy monsieur Ablaye Timbo waaw ah, parce que moom dama am ñaari cër ci moom. moom dafa nekk maire Pikine nekk kilifa Pikine gi yëpp. muy benn cër bi. kon bu nekkee kilifa Pikine daf maa yilif yilif ñu nekk Pikine yëpp. yàlla moo ko def ñu nangul ko ko. beneen cër bi mooy dafa nekk sama papa. mook sama papa ñu fowandoo ba ñu nekk xale ànd def seen enfance yëpp. donc loolu mu nekk sama papa jur ma am ci man cër comme sama papa am donc ñaari cër yooyu laa am ci moom. muy sama lépp nag mu mu wane ko tamit. Mm-hmm. daw ci benn responsabilité vraiment. Mm-hmm. combat bi dafa ma taxaw bu baax jàppale ma. Mm-hmm. parce que jàppale mbër dëgg la bu combat bi jegee baax mais foo muy mooy combat bi des quatre cinq mois ba six. mu war dem antenne na ji mu ànd ak mbokkam mu war a dem dugg regroupement mu war a dem ay saraxam mu war a dem seeti ay mbokkam ay sëriñam nga woo ko ba mu ñëw nga yëkkati sac bu am doole bind ko. da ko am demal nga def sa préparation ba mu jeex. fii loo soxla woo ma. waaw combat bi combat Pikine la xamal loolu te bul dof xam nga. waaw te loolu noonu. lu yomb daal. waaw waaw waaw Ndongo Lo moo ne bu la nit defalee lu baax bu nit ñi teewee wax ko. waaw dafa ma defal lu baax moo tax il faut ma wax ko Pikine yëpp xam yëg ko. Pikine yëpp xam ko. ne ko dafa nekk maire boo xamante ni dawul benn responsabilité. te ni ma koy defalee la koy defaree sama mbokku mbër yi nekk Pikine yëpp. ku ci nekk boo amee combat da ngay bind dugal sa situation ñu teg ko sa loxo. nga waaj ak say mbokk. donc loolu dafa baax ñu leeral ko jeune Pikine yëpp ñu xam ko mm-hmm. ne mi ñuy taxawu mi ngi ñuy jàppale mm-hmm. te bu ñu ko defalu woon tamit suñu papa la waaye dañuy wax ni defaluñu ko waaw di nuyu sama papa Lamine Thiam Togo mm-hmm. di ko ziar di ko jox ci wàccuwaayam bu baax comme ni nga ko waxee sama papa la mbokk la bu fi teewee teewal na fi géwal yi teewal na fi sama nijaay teewal na fi sama nijaay Alaaji Mansour Mbaye teewal na fi sama mbokk géwal yëpp waaw parce que man doomu géwal laa ci yaay waaw donc kenn mënu ma génn ci ñoom ñu am cër ci bu mag su may bëree ñoom ñëpp ñu am pression. Mm-hmm. maa leen nuyu ñoom ñëpp di nuyu sama ménager sama père Bourkhane. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee sama papa la ñu ànd quatre-vingt mille ba léegi. mooy jàppale xam nga. Mm-hmm. di ci sonn bu baax parfois dañuy nekk di di ànd ak man fu nekk. ay mag lañu ñu seen sant mayu leen ko sax waaye xam na ni kii suñu doom la donc cër bi ma war a jox si ñoom rek laa leen jox ñoom ñu delloo ma ko bu baax a baax. waaw sama papa moom du ma ko nuyu moom mooy sama lépp xam nga. Hmm. mooy kanam mooy ginnaaw mooy gauche mooy droite mooy kaw mooy suuf xam nga. Hmm. moo gérer lépp xam nga bu ñu ñë bu ñu juddoon fekk suñu papa nekk ay dimbalu mat. Hmm. wala ñu nekk ministre wala député kon dañuy dem dañuy dem topp kay yi quoi. waaw dañoo ñëw fekk ngemb ci kër gi. donc ngemb moo ko indi. donc loolu deret la quoi. waa loolu kon incha allah moom ku ñu ko jox. kon kooku dañ ko war a fonk. parce que moo waral ba xam nga moo wala lépp ñëw su ñun quoi comme mooy suñu papa quoi mm-hmm. moo ñu ba ñu yegg si fii mu dégg ci mo ci carrière bi lu ne mu neex mu metti mm-hmm. Mm-hmm. waaye dawul benn yoon waaye gaynde la mi ngi taxaw assumé lépp xam nga loolu ñu ngi ko koy ñaanal di ñaan lépp lu ñu am ci làmb yàlla na ko fekkee waaw bu bu mu ko nar fekkee yàlla bu mu ko am na fekk lépp ñu defar ko lépp ci làmb ba mu kontaan ci làmb ba mu kontaan suñu carrière incha allah soo papa Pala Diop maa ngi koy nuyu waaw ak sama papa Baba Diallo ñii ñoo ma ba waaw man sama papa moom moo ma yor ma nekk xale dugal ma box ak lépp. Mm-hmm. mais ba ma commencé dal baa bëre. Mm-hmm. dañ may indi pikin mbooloo. Mm-hmm. sama papa Baba Diallo mi nekk entraîneur sama papa Paala nekk fa sama papa Papa Diop ba son maa ngi koy ñaanal si moom dafa ko tar nekk fa sama papa Mansour Diop nekk fa. ma ñëw jaar dalal baa foofu. fekk fa ñoom Cek ñoom Boy Sey ñoom Malal ñoom Tonnerre ñoo waa Seeraas yi waa Sogaas fekk fa séeréer ñëw di jàng bëre foofu seen biir ñoom commando sama mag ji ñëw na ci combat bi. Mhm. ma fekk leen fa ci ñooñu laa jàngee bëre. Mhm. donc waaw ak Eumeu Sène suñu mag ci ñooñu laa jàngee bëre. Mhm. donc nag bëre dama ko tarbi bu baax a baax. su ma ñëwoon sama saak jóge école. damay ñëw ñun ma looy ni man la damay ñëw seeraan nii ñun ma si meew xëpp ma suuf. ko fële na ma jugal. waaw ma nekk biir ñuy fëkk di di fëkk di dem nale bi xam waaw ci noonu laa jàngee bëre moo tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu deux cent pour cent Pikine bi donc sama papa Baba Diallo ak sama papa Paal bu ñu teewee. Mhm. ñoom dañoo teewal ñëpp ñi ñëwul. mu suñu deux cent pour cent Pikine bi. Mhm. loolu dañ ko samp mu dëgg mu nekk ci xol yi. Mhm. te loolu mooy dox chaque jour. donc ñii bu ñu teewee teewal nañ ñëpp nuyoo bi maa ngi koy teg seen ñu tas ko deux cent yi. muy entraîneur yi muy mag yi ak mbër yi. di leen sant bu baax di wax ne Pikine gis naa nu ñu ma taxawoo nu ñu ma jàppalee. parce que benn lam du yëngu. waaw comme ni benn benn bant bale dafay neex a damm daal. mais bu ñu àndee doole du neex a damm. te xam ne suñu dimanche passé ñu ñëpp ànd nañ doole ñëw taxaw ma mm-hmm. yàlla may ma ndam bu baax mm-hmm. donc ndam li nag mm-hmm. comme li ñu wax léegi rek su ma soobee damay dëgg buntu kër Pikine yëpp ku ne ma indi la drapeau bi ñëw ba si yow jox la loxo ne la sant naa gërëm naa waaye comme mënuma loolu ba ñu toogee xalaat dañ ne léegi li ñuy def mooy li nga xam ne moo symbolique muy premier magistrat de la ville mu yilif ñëpp kooku boo yëkkatee drapeau bu symbolique teg ko ci loxoom moom da koy mën a parce que keroog stade sama signature contre sama open press dafa ñëw. Mm. jël drapeau jox ma. dama drapeau Pikine a nii. Mm. dama nga dara nga teewal Pikine. nga def job ak fula ak fayda. donc loolu noonu Pikine waa yëpp ñu mënoon nañ ma ko jox mais si loxoom lañ ko teg mu jox ma ko. Mm-hmm. donc man tamit su may delloo li nga xam ne ndam li ma jëli. Mm-hmm. si loxoom laa teg mu delloo ko gaa yëpp. Mm-hmm. donc man na sëg donc bu ko yoree rek. mi ngi mel ni autorité Pikine yëpp yor nañ ko. muy Isaaxa suñu grand suñu lépp. jàppale ma. waaw muy muy Pape Sagna mbay sama papa suma lépp ca muy Thierno Domba sama papa suma lépp jàppale ma muy Amadou jara jàppale ma teew sonn yaa ngi dégg muy Modou Gueye président AS Pikine muy autorité Pikine yëpp waaw ñëpp maire ginnaaw laay Abdoulaye Diop Issaaka Diop mention spéciale ñooñu boo jëlee drapeau bi jox ko seen kilifa laa mën a wax sax donc day mel ni jox ngeen ko ñu ñëpp donc loolu moo tax ñu def geste bu symbolique bi mais sunu papa Abdoulaye Timbo di la wax ni kontaan nañ bu baax kontaan nañ ci taxawaay bi. kontaan nañ ci ni nga dawlee benn responsabilité ci doomu Pikine yi. jàppale ma bu baax moom xam na ma sax man damay ñëw parfois sax dama koy poñe. dox ci garde bi xam nga. mooy loolu mais. dara am amul problème. waa xam na man fisam laa xam nga. parfois affaire yi day metti mooy ñëw kër ga xam entre entraînement ak sama suuf ñëw taxaw. fekk muy reer maay lekk li leen moitié bi yëpp. su waxee a ko balaa waaw. këram rek laa nekkee su ma ñëwee toog su waxee ma ne ko du ma buuse mais ñu yaratuñ jox ñu ñu dem laa <laughs> mu ne ma amul fenn fii affaire yooyu day woopee dama booy bu ñëwee fi damay créer <laughs> dama woote rek affaire yooyu mm. waa loolu mm. waaw loolu cër boobu su ma ko amee mm. moom moo ko may tamit waaw xam na ni man doom laa xam nga te doom ak baay noonu rek moo nekk seen diggante quoi doom bi jox ko cër jox ko li mu moom baay bi delloo la ko quoi te loolu wane na ko suma diggante ko maa ngi sant nag ñëpp di gërëm ñëpp mhm. képp ku may jàppale ak ku may ñaanal foo mënti nekk mhm. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax a baax mhm. di wax ni tak suma papa Abdoulaye Timbo mu gën a bàyyi xel Pikinois yi mu gën a bàyyi xel ñu nekk ci làmb jeunesse bi gën leen jàppale rek waaw projet yu mu mën a teg rek pour jeunesse bi a teg rek pour Pikinois yi comme ni mu koy defee mu gën ci teg loxo parce que gars yi ko li wax mbër bu jóg rek ngay gis ñu topp ci ginnaaw day bari ko waxee ku nekk yaakaar ci yow dëgg li ngay feeku ci làmb sax gis nga nu mu méttee mhm. fere yi sarax yëpp ñëw mhm. doo mën a jox ñëpp lu ñu am mhm. waaw te gaa yi sonn ci yow comme ni koy waxee ñu nekk seen ginnaaw ak ñu nekk seen mbokk naan yaa ngi sonn ci diw am ak lan la la jox ko yëpp day métti day nekk suñu bopp waaye bu ñu amee ay autorités yu nekk suñu karam bu ñu ñëwee benn projet teg ko rek wala ñu ne dañoo bëgg ngeen def lii wala def lii wala ñu am ay travaux yoo xam ne dañ ko am ñu jël la maximum de personnes ci booy dugal leen ci ñu mën a yëngu côté gardiennage bi côté nettoyage dëkk bi côté lii côté lii yëpp ñu mën ci teg loxo rek pour Pikinois yëpp gis seen bopp. Mhm. muy man comme Boy Niang sama camp ak camp yeneen mbër yu nekk Pikine yëpp. Mhm. parce que Pikine du man kese quoi. Mhm. ñu nekk seen waar. di yu confirmé jëm ci ay combat ñu leen ñaanal ndam. muy yëpp yëpp yëpp. donc maa ngi ñoom ñoo bokk Pikine quoi ñu ngi sant ñëpp ñëpp ñu ñëw ci préparation bi ndax gis nañ nga préparation ak Balla Gaye ñu gis nga réer daa mel ni préparé woo ko ko préparé. Balla maa ngi woon Pikine dama laaxatu rek ñii ngi naan Lagros ñii ngi naan Déni. non maa non maa ngi woon Pikine. Mm-hmm. dama làkkatu rek parce que làkkatu la combat bi laaj. Mm-hmm. waaw boo xamee fi nga jëm. Mm-hmm. xam Pikine xam Pikine tamit sas bi ñu teg sa kaw. waaw bu ko xam boo ñaaxam ne man du ma fooyee bis daal. waaw damay am wala ma ñàkk rek loolu suñu borom ma ko moom mm-hmm. waaye bis moom dama koy jox àkkam moom mat sëkk quoi mm-hmm. su ma ñëwee stade su ma sumee damay def ful ak faayda ak jom yàlla may ma xam ne loolu la quoi mm-hmm. moo tax ma nekk sama ruq nekk suma staf ak sumay papa di waaj waaw loolu rek la waaw te ñu gis ngemb nga xam ne sa kër papa nga daan ngemboo ba dégg daal yi tey nga am combat Balla gay génn fa dem ngemboo ji fan la booy ñag ngemboo dëgg-dëgg sama kër papa laa ngemboo sama kër papa laa ngemboo parce que sama kër papa moom mooy sama waa kër deretu papa. Mm, mm, mm, sama deretu papa yi nag moom xam nga. ma ngemboo ci kër gi ak ma ngemboo ci ay deretam. si këram laa ngemboo. parce que fu ma ci mënti ngemboo rek moom mooy wax demal ngemboo fii. waaw waaw kon ci moom ci ndigalam laa demee quoi. donc xam nga. donc tamit maa ngi nuyu sama ay mbokk muy waa Sambé. Hmm. di wax ne gis naa ñaani ak taxaw yu baax. Hmm. ak sama mbokk séeréer yu baax a baax. Hmm. gis naa dañ ma taxaw bu baax a baax a baax. donc damaa dem ànd ak samay mbokk rek dem ngemm ji ñëw waa yàlla may ma damaay sant yàlla bu baax. dernière bi ma lay laajaat mooy. bi nga daanee Balla Gaye ndax coow li bari na trop ñu naan li ko Boy Niang wax li ko booy Niang wax bi nga daanee Balla Gaye ba tiim ko lan nga ko wax. <laughs> waaw loolu depuis keroog yaa may laaj de waxuma ko dal ko dama ko nuyu rek xam nga baala suma grand la mhm. te làmb rek moo ñu boole mhm. te dafay rafet te dafay mës a rafet mhm. xam na ne man même sax même sax ku déggul li ma ko wax sax xam nga ne yar ak teggin rek laa koy wax foofu du ma ko dépassé mu ko ci kàddu parce que li ñu boole jeexul na yàlla may nama ndam donc dama ko wax rek pour mu jóg quoi ko wax pour ko wax grand jugal affaire yooyu quoi waaw la rek waaw waa axlu badi rasul loolu duñ leen fàtte loolu moom lañ njëkkee ñooñu duñ leen leen fàtte mu ko ñooñ fu ñu toog leen leen nuyu ziar leen parce que ku xam Boy Niang xam ne foofu la bokk loolu moom jaratul sax ñu wax ne Boy Niang lii man waa kër Cheikh na Cheikh Saat bu laa bokk ñoom ñooy suma wasila ñooy suma sëriñ ñoo defar suma maam Cheikh Ibrahima Seck waaye nag damay dem ci kilifa diine yëpp di fa sàkku ñaan Touba bu jotee kenn du ma fa jiitu yow bu kon xam nga ci dara mm-hmm. Tiwaawan bu jotee kenn du ma fa jiitu mm-hmm. parce que yàlla dafa am ci dëkk bi ñu mu may ñu ay mm-hmm. nitu yàlla yu confirmé donc ñooñu nag ñun ay taalibe la dem fu ne sàkku ñaan waaye teewul tamit ku ne am na foo bokk loolu du daañuwul dara waaw message bi ngay euh, lancé rek si nag euh, yi parce que gis nañ violence xam nga violence moom mën na nekk verbal sax yoo xamante ni maanaam gisoon nañ ko lamb sport la rek. waaw loolu la xam nga làmb moom sport la comme ni nga ko waxee. Mm. te sport xam nga bu boolee. bu mm. boolewul lu tàkkale. Mm. te ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay. Balla dafa may may ma koy may xaalis. te tamit dafa ma may chance ci làmb. parce que c'était pas évident mm-hmm. moo mag ci làmb ci làmb mm-hmm. li mu def ci làmb defagu ma ko maa ngi yàlla def ko mm-hmm. wala ma def lu ko raw donc magal diggante magal rek doon bëri mais làmb nag am na fu muy toll day am làmb yoo xam ne dafa am tension day am làmb yoo xam ne day am coow day am wax mais loolu yëpp bu paree dañuy serré la main mm-hmm. ñu kaaf ñu ree ñu bokk ndey bokk baay mm-hmm. suñ ko gisoon nii léegi balaa muy ñëw dinañ wàcc ñun suñu oto dem jox ko ñaari loxo jox ko cër bi moom mm-hmm. parce que loolu moom yàlla moo ko defal quoi comprendre donc dañuy wax Sénégal rek ak monde làmb ñu bokk ndey bokk baay ñu gën a soigné làmb tamit parce que làmb sport bu neex a jaay la waaye comme ni ma benn kilifa waxoon na ma mu ne Boy Niang mu ne amul ma làmb lu des moo mooy dafa amul ku ko jaay. Mm-hmm. waaye sport bu neex a jaay la. Mm-hmm. kon gis nga gis nga UFC. Mm-hmm. ngay gis dañ koy jaay. sport bi gis nga dañ ko jaay. nee na pour dem. waaw incha allah loolu koy avec plaisir. suñu yaay saajo waaw avec avec suñu yaay saajo yaay ju baax la. waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax. donc kooku moom même bu Balla waxul woon sax. Hmm. ñun moom ku ñu woo ci seeti yaay Sadio dañ ciy dem bu baax. parce que Balla ba papam Balla ba papam gaañoo. Hmm. Hmm. ba papam gaañoo kenn kenn jiituwuñu fa. parce que suñu papa la bu baax a baax. am na solo am na solo waaw am solo ah,